di ko jàppale également euh, ci li nga xam te ne moo di xeex boobu jàpp ne jotatul waratuñu jeter le discrédit ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñu ay euh, magistrat paasal ah bah à à juste titre euh, man nag dama am benn <laughs> bi ñu bi ñu bi ñu bi bi ñaari juge yi décidé Sabassi Faye ak. Thione Ousmane ah Thione ah. ñoom ñaar bi ñu décidé j'ai pas entendu l'union des magistrats. l'UMS waaw. ah kenn déggu leen ah. déedéet te ci communiqué rek la ñu yem bu Ousmane Sonko ba dañu defoon point de presse. waaw mais je veux dire ma maanaam ci ci ci taxawaay ak soutien wu respect de la décision de justice. Mhm. je les avais pas sentis. non loolu daf ma xaw a gêner un peu. après mhm. nag ñoom ñoo xam seeni raison mais ça me gêne. Mhm. maintenant ci cas de figure bi il faut dire que c'est de trop. ëpp na ëpp na pourtant pourtant ñi leen jiiñ ak li ñu leen jiiñ Bassirou Diomaye fay avait fait un post Facebook simplement mhm. may ñu ko sax mu nooy mhm. pourquoi bii cas de figure bi mel ni euh, war a nekk jafe-jafe ah moo jaaxal lu tax woote woowuñu ñi leen jiiñ directement question la ko ils auraient pu être convoqués bu ma juuma et réaction à chaud bi lañu doon xaar mais ils ont laissé traîner également. oui alors maintenant beneen revers bi ou beneen aspect bi moo di ne Sénégal jot na ñu wax ñu wax yenn groupe de personne yi gis naa sax rakku président de la République Aliou Sall. Mhm. di araftu dans ce sens que que report de l'élection loolu mënut a nekk groupe yi nga xam ne ñooy jéem a soutenir loolu sax moom moom jàpp na ni bis bu ñu demoon ba war a egg si loolu sax moom day taxaw jàkkaarloog ñoom ça c'est grand et c'est bien ça veut tout dire aussi maintenant nañu xool xool aussi jéem a gëstu groupe yooyu ñan la groupe puscule yooyu ñuy wax kan kan la ñan la yan façon nit la ka nekk sa ginnaaw wala ña nekk si ginnaaw ñoo ñu yàgg a sonal douze ans xaw ma onze ans douze ans wu jàll ñooñoo ñu fat benn groupe benn groupe la rek la petite courette benn coup bu ndaw boo xam ne ñooy toog di not di nas di not di takk di tegg di kii di influencer di influer fatt nit ñi ñooñu nag tey affaire bi war a jeex ñoo ne dee du fi jeex mel ni ñooy yàlla te xamuñ sax ndax dinañu fekke suba ak gannaaw suba yàlla rek xam mm-hmm. yàlla na ñu dund ñoom ba seeni sëtaat te fekke mm-hmm. te tal ñu ñaanal leen ko mm-hmm. waaye yàlla na yàlla teggi leen ci suñu ay mbir ñun parce que sonal nañ ñu sonal au point boo xam ne que tey sénégalais yi sénégalais baax rek la def du yéene kenn lu bon. Mhm. mais baa ko sësee ci mur bi nag mu wut pexe. te ñoom ñu ñuy sës ci mur bi mbir ba jeexee da rafetal du bool bi jeex na rek nga lekk ba suur bool bi jeex nga jël bool bi mer nga daal di sànni ci bunt bi jóg mais boo ko defee dootoo am loo lekk. Mm, mm. aujourd'hui la magistrature <coughs> du ma ne dafay dund ay moment de souillure mais nu nu nu ko nu ko féetale fenn foo xam ni man ci li ma dund ci 12 yi. gis naa nag am na ci ay failles yu bëri te failles yooyu moom nu sonal moo indi dëkk bi fi mu toll nii tey ji nii cette histoire de Ousmane Sonko Adji Sarr. Mhm. cette histoire de Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang suñu tegu woon ci yoon dëgg ci indépendance bu sincère de la justice à un certain niveau à un certain moment caractériel et caractérisé mais doonuñu woon ak si fii si au préalable ce qui avait été dit sur un procès verbal il y a longtemps doonuñu ci woon dàq Abdourahmane Touré capitaine. Mhm. doonuñ ci woon sonal nit ñi à gauche à droite ay nit ñàkk ci seen bakkan et cetera et cetera ana l'enquête ou les enquêtes sur le nombre de morts yi am ci événement yi am Sénégal on n'en parle pas. personne n'a écrit de communiqué là-dessus venant de l'État ou de ses institutions. te amoon na commission d'enquête parlementaire par rapport. waay yow yow yow yow awa yow doo ma bañ yow loolu anamu fu mu teer le président de l'Assemblée nationale ñaata enquête parlementaire la yor ci table. mais bii moo ko intéressé bii moom bii moom da cee sawar moom bii pour lan parce que c'est le prétexte qui serait que pour mm. lan pousser des magistrats à la démission pour lan way conseil constitutionnel mooy arbitre bi malheureusement arbitre bu amul match du am yow ñii xanaa dañuy gént yow xanaa dañoo xiif yaasa wala danoo bëgg lekk maafe ñun danoo bëgg a avancer dañu sonn douze ans de magistère épuisant ak lassitude ak coono ak beaucoup de sang awa hmm. beaucoup de sang versé wallaay ces gens-là ont le culot de nous regarder et de vouloir nous enquiquiner encore soi-disant qu'on va devoir trouver les astuces par-ci par-là kaka fi kii nu kii la ku parewul yaa xam nga ne ma ne ku parewul yaa xam ñun Sénégal pare nañu ba pare yàlla noppi na. waaw wallaay wallaay Georges tey jii li xew nii ci justice bi des magistrats yu ñuy jeter le discrédit ci ñoom on avait vu venir mais on n'a pas su dire stop à la bonne euh, heure et pourtant quand des opposants s'indignaient par rapport au fonctionnement de la justice on ne cherchait pas à trouver des solutions dañ leen doon yóbbu ci kaso bi directement. waaw euh, affaire conseil constitutionnel c'est une affaire extrêmement grave boo xam ne waruñ ko fooyee. parce que c'est dafa nekk juridiction boo xam ne amul beneen bu ko féete si kaw te ñoom dañu nekk ci à l'heure actuelle où nous ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci élection c'est les juges électoraux mm-hmm. donc ñooñu yaakaar naa te bu leen di fal dañu jàpp ne c'est des juges yoo xam ne ils sont integre ils sont au-dessus de tout soupçon kenn mënu leen wax ne fii ngeen far wala fii la ngeen far fekk nag waa PDS dañoo jàpp que ne lu ñu éliminer Karim Wade du yoon te den ci ay mbir mi dafa rax ay guerre looloo tax ba magistrat boobu nga xam ne mooy euh, Cheikh Ndiaye. Cheikh Tidiane Ndiaye ak Cheikh Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Coulibaly. ñu ñu xam ne dañoo jàpp nga ne ñoom il y a même conflit d'intérêt quelque part parce que Cheikh Tidiane Coulibaly mooy maggu Abdoulatif Coulibaly. man jàpp naa ne euh, man bokk bokk naa si ñoo xam ne gëmuma ne ñoom dañ leen a mën a corrompre. parce que quand euh, xawma leen personnellement de mais c' est des hauts magistrats yoo xam ne quand même qui ont fait peut-être si nekk si ñoom def nga au moins cinquante ans de carrière mm. kooku man mënuma jàpp jàppane très franchement su ma waxee la yàlla mënuma jàpp ne ku ci mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye gis nañu no élan de solidarité bi nga xam te ne dal na si kaw même les avocats voilà donc je je je crois que ñu ngi ko doon défendre voilà donc je crois que bu fekkee ne l'UMS dafa génn euh, def benn communiqué pour euh, euh, nu mu tax sax pour défendre les les les les magistrats du conseil constitutionnel ben je trouve ça tout à fait normal parce que quand même seen ñooñ la ñuy laal te bon on les on les décrédibilise quelque part parce que encore une fois mënoo comprendre que des magistrats yoo xam def nañ cinquante ans de carrière pour des histoires d'argent mu ñu mun leen a véritablement entacher leur leur dignité leur honneur et leur respectabilité maintenant euh, li xew si mbir mi mooy PDS lan la si jublu ba mën a accuser ces magistrats là de d'être corrompus et de d'être en connivence avec je sais pas quoi loolu loolu mooy question bi bu fekkee ne dañu yaakaaroon ne buñ ko defee mën nañu reporter élection yi damay ne loolu dañuy wax leen neex report élection yow mosoo gis fenn dans le monde entier fu ñuy doxali en processus électoral yi dem ba ne campagne électoral bi dimanche prochain lay commencer nga ne woy on va créer une situation de crise bu mën a tax ñu reporter élection yooyu loolu amul fenn te même magistrat yooyu bu def euh, je je je remercie je les remercie au passage même d'avoir porté plainte parce que loolu rek loolu rek moo mënoon nekk solution bi parce que démissionner nekkul solution. c'est pas parce que dañu la accuser ne la yaa def lii nga démissionner non da ngay da ngay porter plainte kooku indi ay preuves si lu mu wax mm-hmm. bu fekkee ne PDS dafa am ay preuves si lu mu wax. mais na ko yow na na na na ko jox euh, la justice justice la justice va trancher. Mm. Sénégal Sénégalais yi tamit. ils vont se faire une idée de ce qui se passe. mais quand même euh, euh, comment on appelle daal di euh, avec dañu complot sax je peux dire avec euh, les gens du du du du, régime. parce ah que bul fàtte ne. mbir mi mbir mi nuñ ko nuñ ko enrôler rapidement ba daal di créer commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale mhm. ba ñu nar ko yóbbu en commission dafa gaaw en moins de trois jours on crée une commission d'enquête parlementaire et yaakaar nga ne mën nañ ko vider balaa le février ne naa la loolu dañ ko vider nañ def lu leen neex mais duñu du mën a tax ñu reporter élection yi xam nga juge le juge électoral ou bien même euh, le président de la République mi nga xam ne mooy au-dessus de toutes ces institutions-là bu fekkoon ne ab euh, les membres du conseil constitutionnel mën nañu xëy démission rek ñu reportable élection kon day yomb kon président boo xam ne bëggul bëggul euh, bëggul par exemple bëggul dem day bàyyi ba élection yi des mu ne magistrat yi démissionné leen comme ça affaire bi kii mais normalement même bu ñu démissionné ñaar ak ñett bu ñu démissionné wala ñoom ñëpp ñu démissionné yoon may na président république mu falaat ñeneen rapidement et le continue mais est-ce que tey euh, paasan du magistrat yi ñoom ñoo seetaan ba ñu agsi fii ndax yàgg nañu yëkkati ay tuuma di ko ngàll seen ndodd jéemuñu woon raxas seen der lu dul liñ ci jublu woon moo di comme ni ma ko doon waxee bu fekkee ne ku jéegi ñoo ko wax ñu tëj leen ci kaso gi tey ñi nga xamante ne dañ naan soi-disant opposition la ñu bokk kenn tëju leen ci kaso bi kenn dergul benn daan si seen kaw la réaction même euh, de ces magistrats là euh, a été tardive waaw euh, xam nga à un moment donné c'est comme quand bi ñuy wax ne euh, seetaan bi dafa yàgg e seetaan bi de tout bord ni ñu koy waxee ci presse bi en partie wax ko ci magistrature wax ko ci beaucoup de beaucoup de de de secteurs de la vie active au Sénégal mais awa. Mm-hmm. en waaw il y a eu Georges la situation ak maître Babacar Seye. waay mm-hmm. c'était extrême c'était plus grave. il y eu la démission de notre papa Kéba Mbaye feu. Mm-hmm. yàlla na yàlla yërëm leen. est-ce que tere woon na 93 élections am. wu ko woon. par conséquent mais nag xam nga borom mi pexe du tàyyi moom fu mu gis prox ndool rek dafa jëm léegi nag li nga ma laaj noonu pour tontu la ci c'est très simple les gens ont trop laissé faire on trop regardé et aujourd'hui ça tombe sur sur tout le mone bu dalee ci ñi tey ñi seetaan démb mu dal ci ñi tey bu subaa mu dal ci ñi ci des mm. Sénégal dañu war di dundee dëgg. di dox si dëgg quels que soient nos états d'âme pour les uns et les autres mhm. su fekkee ne awa neexuma wala bëgguma ko te awa moo nekk ci dëgg ma wax ne awa moo nekk ci dëgg te yàlla tax d'accord dans ce pays là c'est comme ça qu'on doit fonctionner tant que sur la base des principes nous n'existons pas mais toujours est-il ci ay difficultés la ñuy dund mais tey jii nii bu yeboo mu leer ci bopp ñi ñoo seetaan ñi ñoo déglu ak ñi nga xam ñoo yore suñu institution yii mhm. foog nit ñi kilifa yi xam ne senegal moo ëpp seen importance seen ay jëmm ñu jox nit ñi cër que dund dix années ci naataange gu tar yàlla jox la lépp sawaay bu la nee nag ah waxtu wi jot na da war a gore d'accord ñu ñëw ci euh, troisième point bi waaye damay nuyu Éric euh, Ndiab ak euh, Pape Sène depuis Ndiaganiao yaakaar naa ne fi mu nekk Ndiaganiao ay capital bi de Éric maa ngi lay nuyu bu baax a baax l'homme fort mi ngi ratissé terrain bi